mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay cinquante huit ci suuratu yusuf wa jaa ixwatu yusuf ci page deux cent quarante deux bi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal gi nga xam ne nii ñi ngi koy dund muy xéewalu chahru ramadan mu may ñu it tawfiq ñu ñëw fii ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne ab téeréem ba mu wàcce woon ci biir chahru ramadan loolu kon mbokk ay xéewal la yoo xam ni li ñuy ñaan mooy yàlla na yàlla nangul ñu ko mbokk yi nga xam ne it ñoo nekk fu ñu mën a nekk ci kaw suuf di ko déglu ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal ñu ak ñun ak ñoom ñëpp boole ñu ci ñoom ñi féetewoo àdduna di leen féetewoo allaxira kon incha allah dañuy bàyyi ak Cheikh Ousmane barakallahu fikum suñu borom mu ni wa jaa ixwatu yusuf noon la ñëwee frère yusuf ya fa daxalu alayhi ñu dem nag dugg ca yusufa mu recevoir leen fa arafahum wa hum lahu munkiruun yusufa xàmmee leen ñoom ñépp ca ñoom ñépp doon ñu ko fakk ay kenn xamu ko ca walamma jahazahum bi jahazihim bam demee ba waajal leen seen waajtaay ba te mooy giléem yam leen doon sëfal qaala atuuni bi axin lakum min abikum mu ne indil leen ma seen frère bi nga xam ne yéen a ngi bokk ci seen baay ay seen doomu baay bi ala tarawna anni aw fil kayl xanaa gisu leen ne man maa ngi matal sëkk samay natt wa ana xayrul munzilin te it man day maa gën ci ñi ngeen xam ci ñuy wàcce ay gan ay di dalal gan fa in lam taatuuni bi su dee bu ngeen di dellu si indiwu leen seen frère boobu day fala kayla lakum indi wala taqrabun du ngeen am ci man benn natt te it du ngeen ma jege sax qaalu sanuraawidu anhu abaahu ñu ne ñun day bu ñu demee dañu sàkku ci mbiram ka nga xam ne mooy baayam wa inna la faailuun sikk amul ci ne loolu dañ ko def wa qaala li fityaanihi noonu la yuusufa wëlbatiku wax booy ya nga xam ne ñoo koy liggéeyal ijcalu bidaatahum fi rihaalihim def leen seen marchandise yi ñu indi woon pour jënde ko pepp mi ñuy dunde delloo leen ko ci seen biir njëg ji ay seen bagage yañ yor teg ko ci seen gileem ya dugalaat leen ca baga la nga xam ne moom la ñu indi laallahum yarifuunaha ngiree ñoom ñu buñ demee ñu xàmmee ko idan xalaboo ila ahlihim bu ñu delloo ca seen njaboot ga laallahum yarji'uun ngiree ñu mën a dellu siwaat fii ci Égypte falamma raja'u ila abi ila abihim bañ demee ba dellu ci seen baay qaalu ya abana mu ne aminna alkayl ñu ne ay baay ñun day dañ ñoo tere léegi ne dootuñu nattati fa arsil maana axaana naktal ay baay na nga bàyyi suñu frère mu ànd ak ñun ci noonu rek la ñuy mën a demee di natt wa inna lahu la xaafizun ca bàyyi day sikk amul ci ne ñun daan doon ñu koy wattu ñu ngi noonu mbokk alquran heure boo xamee ni nii day jàngale day ñëw ca la nga xam ne nii mooy priorité ya détail ya yow yaa koy dégge ci sa xel yow mi may topp ñi ngi sunu cinquième épisode ci film bi gën a neex bu doomu aadama di mës a dégg bi gën a wér te mooy lu suñu borom yàlla nettali ci loo xam ne moo ko dogaloon ci ay jaamam acteur principal ba nekk yuusufa alayhi salaam kon buur ba géntoon na yuusufa ni da ngeen toog sept ans yoo xam ne nawet yépp ay normal waaye gannaaw loolu dana am sept ans yoo xam ne du ngeen mën a dunde lu dul la ngeen économiser woon ca sept ans yu jëkk ya kon sept ans yu jëkk ya jeex na léegi nag ñi ngi dund jamonoy xiif jamonoy maral di loo xam ne yàlla tàllal na ko mu dem ba fa yanquba nekkoon ci biir Palestine nga xam ne mi ngi duggoon ci Cham loolu lépp la ñuy tuddee Syrie loolu gox yooyu yépp doon gox yu maral te it mbokk suñu boroom subhanahu wa taala mooy dogal loolu ci ay jaamam wala fi dañ naan nawet ay dafay naawe wet léegi la ngay gis gox bi am lu dul jeex gox bale amuñu dara ci xikma yàlla yàlla def loolu ngir échange di mën a am ci doomu aadama yi léeg-léeg ñuy ñàkk uti fee ila axiri mu ciy tasaar it ay jaamam ak bari tey ay nit ñu tasaaroo waxuma sax bitim réew mais Sénégal ay xiif ñoo leen dàqee fu mel ne Jolof wala mu fenn waalo ñi tasaaroo jëm Saalum ñi tasaaroo jëm Kajoor ila axiri loolu kon ci biir yàlla la léegi nag ah fa yanqu ba nekk amatuñ dara waaye dégg nañu am na buur bu nekk ci Égypte day moom boo demee dana la jox giléem ba mu fees ci dund yanquba ne kon feer yi yéen ñépp ay dem ndax su boobaa dañ am fukki giléem loolu mi ngi ci jublu frère yi bokk ndey ak bàyyi ama binyamin moom xel xalaatul mu koy bàyyeeg ñoom léegi frère yooyu bokk ak yusufa ndey ak bàyyi kon daa di ñëw ci biir Égypte biñ ñëwee yegsi ca fa nga xamee ne ni fa la ñuy séddale dund ya naka leen yuusufa gis rek xàmmee leen ndax xam ngeen xale mooy gën a xàmmee mag ñoom yusufa ña nga ko sànni woon ci teen ba xalaatuñu yusufa mi ngi ci gox yi yépp fekk yépp yusufa ngi sol maxane buur bi am na luñ ca dolli sax na buur yu jëkk yi dañ daan takkaayoo ci ay chaîne or ak ay lami or ila axiri wallahu subhanahu wa taala aalam ala kulli xaal daal mi ngi yore melokaanu buur xàmmewuñ ko léegi yusufa ñëw nattal leen ku nekk lam lay jox mooy sa gileem ba mu fees mu nattal leen ñoom ñépp léegi nag bokk na loo xam ne nii borom xam-xam yi wax nañ ko ñu ne yusufa da leen wax waaw yéen yéen ni ngeen mel nii fukki ponkal yéen a bokk fu ngeen jóge ñu ne ko waaw waaw ñoo bokk benn baay mu ne fukki yépp yéen a bokk baay mu ne waaw seen baay yéen rek la am ñu ne déedéet suñ baay amoon na fukki doom ak ñaar benn doom ba daa réer bon beneen doom bi moom da ko bëgg bëggeel boo xam ne dara taxul mu teqale ko ak moom yusufa ne leen ha mu ne waaw mu ne mun nag yéen nag bala maa gëm ne yéen du ngeen ñëw fii di espionné wala indi ay mbir gis nga bis bu ngeen duggee ci misra ci indiwu leen seen frère boobu du du ngeen fi jële benn kilo ca sax man du ngeen ma sax jege ah léegi nag problème bu rëy am na problème bu rëy am na ndax loolu naka lay demee ah gaa yi na ko waa baax na ala kulli xaal day buñ demee waxuñu ne daañ ko indi de waaye lu ñu man ci baayam ci wax ko moom dañ ko def dañ ko sàkku ci baayam te it wéer na leen ne loolu moom dañ ko def amaa nag ndax dañ ko indi loolu moom beneen mbir la yusuf alayhi salaam ba ñu bàyyee ba guddi gi gaa yi war a dem mbokk nañu xam ne xaalis ba mu tasaaroo ci réew mi ci àdduna bi ba yàggul nit ñi bu jëkk dañ daan échange troc lañ daan def masalan ñii dañuy am xorom boo laajee classe ñoom Serigne Ndiaye gi xam nañ naar yi barca barca naar yi daan jógee Mauritanie indi xorom suñ la joxee kilo xorom nga joxe ñaari kilo dugub pëlier ñoom indi seen soow buñ la joxee taxub soow nga jox leen nangam ci ci ci dugub ila axiri bu jëkk noonu lañ daan def lu ci bëri ñoom yankoo ba fa nekkoon ay deri gileem lañ daan jël di defar bu ñëwee di di ko jaayee yusufa nag ne leen ku nekk li mu indi woon parce que ku nekk da ngay indi joxe ñu jox lu gileem ba mu fees ku nekk la mu indi woon lemaat leen ko ba mu jekk ngeen bàyyi ba guddi ngeen roof ko ci biir bagage am buñ ko yëg ah booy yi def loolu gaa yi déparé fa bi ñu déparé daa di boobu yusufa mu ne ngiree ñoom bu ñu demee xam ko dañ mën a dellu si am ñeen la ñu jàpp zahir bi lool lool la mooy Yusuf dafa bëgg ñoom bu ñu demee benn gis ne lii kan moomuñu ko daañ gaaw a nibbi si ngir delloo si ko ndax xam nañ ne ay doomi yonent lañu du ñu lekk lu xaraam loolu muy benn ca yit tamit loolu ak a yàgg dal doomu aadama nga dem di jëndi fenn yow fa ngay jënd xam nga ko mais commerçant bi xamul foo jóge erreur am seen diggante erreur ba ci wàllu xaalis bu mu la delloo bu bu bu ëpp wala bagage jàmbur yi mu la jox nga la way ragal yàlla delloo ko ko nga noon ragal yàlla delloo seen ko ko laallahum yarjiun am na yi ñu jàpp ne déedéet yusufa comme ñi ay waa ay frère am lañu ñi ngi jëm kër bàyyam ñu lekk seen alal ndax bokk na li suñu borom yàlla di wax naan laa junaha alaykum an taakulu min buyutikum ba baa fi wax buyuti ixwanikum wa axawatikum ila axiri mooy nit ki aajo mën na dem lekk kër frère am comme ni mën a lekk kër baayam kër nangam na ko yàlla di waxe ci suratu nuur suratu nuur ba yegg sax ci xarit kon ñu ne looloo tax bëggul woon lekk seen seen seen bagage almuhim daal politique la bu mu def ñee leen dem leen ngeen delloo ko seen bagage ngir ñu mën a dellu si ah gars yi dellu nañu ca yanquba biñ ñëwee nag bii pa am nañ problème bu kenn xamul nu mu toll ñoom ñoo defoon seen i manigance ba nax yanquba ba mu jox leen yusufa ñu dem sànq yusufa léegi nag li ñuy wax dëgg la dëgg la mooy buur bi nee na suy binyamin ñëwul du ngeen fi natt ah waaye lu ñu def biñ ñëwee ci seen bàyyi ñu ne ko bàyyi mbir day am na ñun day buur ba nekkee Égypte dañ doon wax ak moom ba suñu làmmiñ rëcc xamal ko sa njaboot lu mu toll moom nag nee na wóolu wuñ tant que indi wuñu Binyamin nee na dootuñu nattal te it nee na sax duñ ko jege bàyyi bàyyi ñu ñu yóbbu ko rek ñi ngi lay seedeel ne dañ ci wattu ba gars yi ndax bàyyi dina leen gëm mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل متين قال لكم له معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل jazakallahu euh, barakallahu fikum suñu borom subhanahu wa taala mu ne yaqub alayhi salaam qaala hal amanukum alayhi mu ne ndax man danaa leen wóolu ci moom illa kama am illa kama amintukum ala axihi min qablu xanaa lu dul rek ne na ma leen wóoloo woon ca frère am ba lu jiitu fallahu xayrun xaafida yàlla day mooy gën ci ñiy wattu wa huwa arhamu rahimin te yàlla moomu moo gën ci ñépp ñoo ëpp yërmaande ci képp ku yërmaate walamma fatahu mataahum bañ demee ba ubbi seen bagage ya wajadu bidaatahum ruddat ilayhim ci noonu lañu fekk marchandise mën ñu yóbbu woon pour échanger ko ñu delloo leen ko qaalu ya abana ñu ne ay suñu baay maa nabixi lan la ñuy sàkkooti ci preuve ci mbaaxoog buur bi haadihi bidaatuna ruddat ilayna sunu marchandise ma ñu yóbboon mi ngi nii delloo si na ko ci ñun wa namiru ahlana daañ mën a dundal suñu njaboot wa naxfazu axaana daañ mën a wattu suñu frère bi wa nasdaadu kayla bair ca daañ dolleeku nattub giléem bu fees ذلك خير يصير أي باي دي دي أم نطلب يوم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله من ديت duma ko yónni mu ànd ak yéen mukk xanaa lu dul ngeen jox ma benn kóllëre ay benn fasanti dig bu ñuy dima digganteeg yéen min allah bu bawoo ci yàlla ay ñun ñëpp yàlla la ñuy seedawoo loolu ca mooy la taatun na nii bihi mooy da ngeen ma delloo si sama doom ji illa an yuxaate bikum xanaa lu dul dañ leen ne peeg ba noot leen à cent pour cent waaye du ngeen ñëw fi mukk di ma wax ay leneen lu dul loolu falamma aatawhu mawsiqahum bañ demee ba jox ko seen kóllëre ga mu ngi noonu lañ diggante qaala allahu ala ma naqulu wakil mu ne yàlla nag li ngeen di def mooy ka nga xamee ne nii ala ma naqul ci li ñuy wax mooy ka nga xam ne mooy ka koy garantir mi ngi noonu di ko wattu mbokk yanquba alayhi salaam yéen ñépp xam ngeen ne du wóolu doom yi tubaab yi ñoo naan menteur n'est jamais écouté même quand il dit la vérité loolee mbokk mi ngi noonu te bàyyi ci bàyyi ci xel bu baax mooy ab lépp bu gaa yi daan lépp nee na waa ji daa ànd ak morom dañuy sàmm ba mujj mën a ko mu ne ma neexoon de waa dëkk bi yëpp daje fi ah mu ne ko waay waa dëkk mën nga leen dajale fi mu ne ko waaw waaw mu ne ko dajale leen rek nee na mu daal di yëg ci kaw garab gu yuuxu gaaw leen segg gaangoog segg gaangoog waa dëkk ba ku ne fëx ak sa yet biñ ñëwee fekk ne dara amu ci dégg nga gaa yi lu nañuy wax ko ko wàcc dem ni bi ñu toog nag yàlla mi dara tëwut benn bis rek segg ga ñëw dugg ci gétt gi di fàdd mu naan gaaw leen segg gaangoog gaaw leen segg gaa yi ko toppal fa de yaa ngi dégg loolu ñu ne menteur ne jamais écouté même quand tu dis la vérité suñu yeneen ta alayhi salatu wasalaam it daanañu wax ne laa yuldaxul maru fi juhri aw muslim fi juhri maratayn mu ne jullit kenn du ko matt ci benn pax ñaari yoon nga dugal sa loxo ñu matt la ngay dugalaat déedéet loolee kon da ngay war a fagaru yaaqooba na leen duma leen ci wóolu yéen moom duma leen ci yóolu mukk xanaa kay sama doom ba ma koy bàyyi it man ci yàlla laa koy bàyyee yàlla mi nga xam ne moo ëpp yërmaande ci képp ko yërmaande te ngalawaay yi booy sàkku wattu sàkkul wattu yàlla yàlla rek mooy wattu yàllay wattu ñi ci kër gi yàllay wattu ñi ci geer ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi naan ay yéen nit ñi bu leen mel ni yéefar yi nga xam ne bu ñu amee mbokk bu tukki wala bu dem jihaad ñu nelaw kaanu indana ma maatu wa ma qutilu bu ñu nekkoon ak ñun duñu dee wala duñu rey déedéet mbokk dund ak dee ci loxo yàlla la nekk doomu aadama dem na jihaad ah dugg ci char de combat yi bal di ko romb gauche droite mu ñëw xuree ko sax defu ko bi mu ñëwee ci riim ñu tàgge ko fukk ak juróom yoo xam ne ni ci gannaawam la ñu dee am déet kon yàlla muy wattu xayrun xaasisan wa huwa arhamu rahimin léegi nag gaa yi kon yanquba wax na leen loolu mooy duma leen ci wóolu abadan gaa yi nag dem ubbi bi ñu ubbee bagage yi ku nekk gis la nga joxe woon ñu delloo la ko dugal ko fee bagage ñu ñëw ne ah bàyyi xanaa nag léegi da nga am xel mu dal ci buur bi mbaaxam ku nekk ci ñun la nga joxe woon delloo na la ko lii mbokk lii bàyyi danañu permettre kon ñu mën a dem ànd ak suñu frère bi fukki giléem lañu indi daañ mën a am fukki giléem ak benn loolee mbokk lañuy jàpp comme preuve te ko ci loxo yanqooba waaye mbokk histoire bi ñu ñu suñu borom yàlla nettali muy histoire bu réel julit du ci sikki sàkka am na it benn waaye nettali na mu histoire boo xam ne histoire yi bu ma gëm la mooy chef de quartier unité 24 bi ñu ngi koy tuddee biran li ku dem ci moom nettali ko ko moo nekkoon ancien góol góol la woon bu jaraaf nekk góol équipe nationale nee na dañoo dem équipe nationale ñu dem Chine bi ñu demee Chine nee na di fa football gars yi sénégalais yi hôtel bi ñu nekk kuddu gu rafet ñu sàcc dugal seen biir sarbet bu rafet ñu sàcc léeg-léeg ñu dem ci ay magasin dugg sàcc nee na chinois yi waxuñu leen dara bàyyi leen rek ñu dema dema dema dema dema dem ba jour bi ñu waree nit bi nee na ñu ñu leen dañ leen di may benn benn film mais film bi mooy bi ñu wàccee aéroport Chine ak li ñuy wër ci biir Chine fu ñu mas a dem fu ñu mas a dem ñu leen koy filmé di leen filmé ba bi ñuy rang di dugg salle bi ñuy seetaane film bi loolu sax bokk na ci film bi mais ba tey waxuñu leen dara nee na ñu dem dem ba war a dem léegi ñu dajale seeni bagage dugal ci ay camion ñoom ñu yóbbu leen ci benn car ku nekk ñu may la benn sac defal la ci ay objet yooyu fàttali ko Chine waxuñu leen dara nee na ñu dem da ngay ñëw wàcc jël avion wàcc aéroport Dakar mais bi ñu wàcc aéroport Dakar nee na ku nekk sa sac boo ñu ubbee rek lu ca chinois moomoon rocci nañ ko bàyyi la ak say bagage mais mais mais ma xool loolu rek lu ca chinois moomoon rek rocci nañ ko yow bàyyi la ak say bagage mbokk ngeen gis loo xam ne dañ ko war a jàng ci ñoom mooy asiatique gi dal gi leen yàlla may ah téeméeri chinois mën nañoo yend fii doo dégg seen baat waaye ca ñetti bawol bawoloon ja salum salum de ñett rek laa la wax ah mu mujj mu mujjul doo nelaw ah donc noonu lañu dale ànd ak seen dal tey waxuñu leen dara ah lu mel noonu nag lu Yuusufa defoon il y a quatre mille ans dégg nga daa di leen di delloo seen bagage waxu leen dara gaa yi nag ñëw bi ñu ñëwee insisté ci yankuba alayhi salaam yankuba ne waaw kon leen daa lay mën a am pour ma bàyyi commande ak yéen moom yéen ñëppay taxawaatal ma ci yàlla waatal ma ci yàlla ne ah da ngeen ko dellusi lu dul yéen ñëpp dañ leen a noot da ngeen a dee wala dañ leen a tëj wala dañ leen a lum mën a doon waaye daal kenn ci yéen du dellusiwaat fii naan mi biniyaamin ma nga des gannaaw te ñoom xam nañ ne waat ci yàlla loolee boo ko deful alkaangi gam lay topp àdduna ak alaxira loolu lépp xamoon nañ ko rawatina ay doomi yeneen ci lañ ñoom ñëpp ñu waat ci kanamam ya bàyyi du ñu dellu si di la layal ci yankuba mukk ah léegi nag yankuba ne leen sunu lii ñuy waxante day yàlla lañ koy seedaloo wallahu ala ma naqul wakil loolu la eh, Moussa alayhi salaam waxantoon ak gorom ba ñu ngi noonu am na ñu koy wax Shuaybu waaye la gën a wér du Shuayb ala kulli xaal wallahu ala ma naqul wakil ak a neexoon bépp contrat bu ñuy signé entre julit la ñuy mujjee mo ca suuf ñu bind ci wallahu ala ma naqul wakil mi ngi noonu bépp contrat booy signante liggéeyal ma maçon menuiserie embauché ma architecte chef comptable lu mu mën a doon lépp loo xam ne da ngeen ko war a tëral ci liggéey bi su ngeen demee ba d'accord ci ne ah léegi nag yàlla mooy suñu seede ku nekk ci ñoom xam ne heure boo waree du ne waa ji nga war kese waaye am nga bakkaar sa digganteeg sa borom te loolu it jullit da ko war a xam li nga engagé wu yéen a koo def def ko fay gu rëy mi ngi lay jóge ci yàlla waaye engagement bi nga jël ba pare war ko na nga xam ne mbugal bu rëy mi ngi lay jóge ci yàlla mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون
barakallahu fikum kon yankuba mu ne wa qaala ya baniya ay yéen samay doom laa tadxulu min baabin waaxid su ngeen yeggee ca ah misra bu leen duggee benn bunt wadxulu min abwaabin mutafarriqa na ngeen duggee ci bunt yu teqalikoo wa ma ugni ankum min allahi min shay'in te day nekk ma di leen mën a jëriñ ci mbiri yàlla ci dara lu mën a doon inil xukmu illa lillah ab atte ñeelul kudul yàlla alayhi tawakkalt man day ci moom dong lay wékku wa alayhi fal yatawakkalil mutawakkiluun te it ci moom yàlla day nay wékku képp koo xam ne da ngaa bëgg ci koo wékku walamma daxalu min xaysu ab amarahum abuhum bañ demee ba duggee fa nga xam ne nii fa la leen seen bàyyi ba digale woon ma kaana yuxni anhum min allahi min cheyin nekkul woon di leen jëriñ ci yàlla ci dara illa xaajatan fi nafsi yaquba qadaaha xanaa lu dul benn aaja bu nekkoon ci bakkanu yaquba boo xam ne da koo atte wa innahu la zu ilmin lima allamnaahu yankuba de borom xam-xam la ci la nga xam ne nii ñun yàlla ñun ñoo ko ko jàngal walakin aksara naasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nekk ñu di xam walamma daxalu ala yusuf bañ demee ba frère yépp dugg ci yusufa awa ilayhi axaahu noonu la fate jëme ci moom ka nga xam ne mooy kam bokkal ndeeg bàyyi di binyamin qaala inni ana axuuk mu ne ko man day may sa frère yusufa fala tabtais bima kaanu yamaluun bul nekk di tiisu mukk ci li nga xam ne ñii nekkoon nañ di ko def mi nga noonu mbokk kon frère ya ànd nañu ànd nañu ak binyamin ñi ngi jóg di dem bi ñuy dem yanqubu ne leen ay yéen samay doom su ngeen demee ba ci dëkk ba tasaaroo leen bu leen ànd mukk di duggandoo ci benn bunt te boobu dëkk bi amoon na ñeenti bunt mu ne su ngeen demee na ngeen tasaaroo looli mu teg ca ne nag ne mënulu ma leen fegal ci yàlla ci dara yàllay atte lu ko neex man ci moom lay wékku ci kuy wékku ni wékku ci yàlla mbokk yanku ba lam doon ragal ci njabootam rawatina binyamin mi nga xam ne moo ci ànd mooy yàlla mooy li nga xam ne mooy bët mooy bët Sénégal yi li gën a siiw ci moom mooy li ñuy tuddee dëmm waaye mbokk dëmm ci ni ko Sénégal yi xamee loolu amul dëmm amul seytaane yi ñoo koy def léeg-léeg ñu dugg ci doomu aadama mu naan maa lekk diw ak maa yóbbu xol baak maa nangam léeg-léeg benn waay daal di fi mu naan xool leen yóbbu na sama faar ga yóbbu na sama res ba mbokk yooyu ay feebar la mais dëmm ci boppam amul am na nag loo xam ne lu lislaam saxal muy bët bët moom am na su ko defee yonente bi alei salaam daan wax na al aynu xaq bët day dëgg la dana dugal nit bàmmeel dana dugal gileem ci kaddir loolee moo tax daanañu wax ne kenn ci yéen bu gisee dara lu ko yéem ci boppam ci alalam ci keneen ku mën lool ngal la waay la wax tabaarakallah allahuma barik mooy na woo ñaan barke macha allah tabaarakallah mais bul wax waxu yéem bët kese mën na lor su àndeeg làmmiñ nag day gën a garaaw comme bal lay doon yaa ngi dégg yaa ngi ngeen dégg ñaari saxaaba yi àndoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee ba ci seyaan gi kenn ku summeeku rek morom ji ne chatek waay ci moo rafet yaram waay waa ji ci saa si commencé dag dag dag dag na këpp ci biir seyaan gi gaa yi yëkkati yëkkati mu ne leen xañ seeni loxo ñu daw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi def loo waajo loo xam ne koo ko def loon tey ji mu yóbbu la police te yonente bi dana ko da ngay jàpp mu jàpp ñu daal di jël sër ba mu doo woon le féete biir ñu xooj ko daal di cay jël xëpp ko waaj mu daal di ne xefet yow mel ne dara musu ko dal mbokk kon bët dëgg la doomu aadama bi loolu tax ngay génn di génn di muslu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana jàpp ca ñaari bopp sëtam ya xasan ak xusayn di wax naan uizukuma bi kalimati llahi tammatin min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lamma maa ngi leen di làq ci gannaaw kaddu yàlla yu matt yi ci bépp shaytaane ci bépp lépp lu ànd ak dangar ak ci bépp bët boo xam ne nii bët buy lor la boo demoon ci arab yi dañu koo xamoon ci ñoom ay nit ñoo xam ne lu ñu gis yéem ko mu yàqu sax léeg-léeg nga dem ci yenn téere fiq yi ne loolu kuñ ko xam ci yow dañ laa war a tëj sa kër waratoo génne ci mi ngi noonu gaa yi sax dañuy nekk di léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne doomu baay ba da koo raw ci alal day dem ci gis ci ñooñee neexal leen fuñ ko gis rek bu leen rombee gilee moom wala leen ñu naan ku seet tët tët way ki boo taar waay way xoolal li mu war waay ah balaa yàgg rek catastrophe yi dul jeex dal ko waaye ala kulli xaal ak lu mën a doon gëmal na dëgg la comme ni ngay gëmee na njabar dëgg la waaye nag da ngay gëm ne wa ma hum bi daarina bihi min ahadin illa bi iznillah amul lenn loo xam ne mën na lor lu dul ci yàlla teewul na nga jël say sabab di lépp loo gis mu yéem la nga daal di ah wax macha allah wala tabarakallah képp koo xam ne nii mi ngi wax jëm ci yow lu lu yéemu nga ne ko macha allah wala nga ne ko tabarakallah mi ngi noonu ñaan yàlla musal la ci ayu bëtam ak ayu làmmiñam yaa xamu ne leen yàlla rek ay atte moo tax man ci man laa wékku alayhi tawakkal ca kuy wékku ay am koy jafandu na nga jafandu ci yàlla mu wuteeg li xew Sénégal jafandu leen ci caam jafandu naa ci caam jafandu leen ci caam jafandu naa ci caam mbokk yooyu suñuy wax rek la ah loo ko mbokku doomu aadama ndax dana jafandu ko ci keneen ku dul yàlla ah sëñ diw ñu ma yaakaar adduna ak alaxira boota bi dee daanu nga yaa cheikh diw ah mbokku yankoobe bii di wax moom ci boppam yonente la doomam yonente la maamam yonente la baayam yonente la xanaa kay bu doon kuy doy koy dolli rek kooku wares na ko doyloo am déet waaye mu ne man sama wàllu bopp ci yàlla lay wékku te kuy wékku ne wékku ci yàlla waxul kenn wékku ci moom te moom yonente la ndax jàpp nga ne suñ caam ak suñ baag suñ ku mën a doon mën na ko ëpp ay daraja ca yàlla ba yow jullit ngay jàq di woo keneen ku dul yàlla wala ngay jafandiku ci keneen ku dul yàlla jafandi leen ci du mu jàll ñu ëllëg yow lañu yaakaar shirkul akbar ah gan la waay mbokk ñu bàyyi xel ci loolu bu baax borom bi subhanahu wa taala daal di jógee jóge nañ Syrie yegsi nañu Égypte bi ñu yegsee ba ca Égypte ñu def la leen seen bay sant teqali ko groupe de 3 3 ñu ngi noonu ñii jaare fee ñii jaare fee ngir ñu mucc ci àndu mbooloo te loolu it nga la waay léeg-léeg xëy na mbooloo di dem lu mel ne mbooloo jàkka ji wala mbooloo famille wala leneen su ngeen mënoon teqali ko loolu moo gën ndax lu mat fukki ponkal bu ñu àndee dem toujours dañuy attirer attention tey boo demoon dëkk mel ne Arabie Saoudite en général bu dul jamonoy at yi ay nit ñu ànd 4 5 xamal ne police topp na leen dégg nga loolu tax toujours même gars yi fa nekk étudiants yi yooyu bu ñuy dem dañuy teqali ko loolu itamit la suñu mag ñi daan bañ ci famille yépp ànd di dugg ci ay oto di tukki looloo tax dañ daan bañ ñëpp famille yépp àndandoo dem bu ñuy dem ñii dañuy dem ñii toog wala boog bu ñuy demee ba beneen yeneen doo yeneen doog a dem mais ñoom ñëpp duñu àndandoo rek dem ñu ngi noonu kon léegi nag dugg nañu Égypte def nañu leen seen bay santoon loolu it borom xam-xam yi dañ ci profité yow ndawal jurit walamma daxalu min xaysu amarahum abuhum bañ duggee fa leen seen bay sant mbokk ndawi tey yu bëri léeg-léeg nga bëgg a dugg ci mbir benn da nga naan da ngay beru ji da ngay takk jabar da ngay tukki sa bàyyi na la déet bul def loolu defal lii ah waay bàyyi dafa compliqué waay déet bàyyi compliqué wul de bàyyi daa yàgg ak àdduna daa xam loo xamul sun mag yi wala fi dañ naan mag day dana tëdd di seen lu sori xale yi ci kaw garab ga moom du seen dara loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax nga la waay lépp looy def laajal sa conseil yu bàyyi bu fa bàyyi nekkul ña la mat bàyyi nga waxtaan ci ak ñoom ca conseil yi nga jox nga def ko doo dugg mukk ci mbir jëfe ca ndigal yu jóge ci say wayjur jóge ci say kilifa ba pare rëccu di ca am fokk yàlla subhanahu wa taala jàppale la loolu tax mu ne fa lamma daxalu min xaysu amaruhum abuhum borom bi nag nee na loolu jëriñu leen woon dara ci yàlla loolu taxul ñu mën a mucc mbiri yàlla ca loolu it yow julit ngay gëm say sabab yi ngay def bu mu tax nga jàpp ne mucc na abadan mooy yàlla nag mooy dogal lu ko neex yaa ngi génn sakara bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ndax lan ciy boole ne déedéet dara du ma dal déedéet wa yow la nga waroon a def moom def nga ko jaamu yàlla la goo xam yàlla dana la ko fay li ci des nag mooy mbiri yàlla la da ngay tëdd tëj nga sa kër tëj buntu yeeg yépp mais ndax mucc nga déedéet ana ñaata lañ dajji seen kër fekk leen fa rendi leen kon yow daal julit defal sa warugar li ci des nga bàyyi koog yàlla yonente bi alayhi salaam benn groupe caamin daa jógee fële ñëw ci jàkka ji wàcc ci gileem gi rek bàyyi ko ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente ne ah waaw loolu tënk sa gileem gee waay mu ne ah man de yu mu yàlla yéen tawakkaltu ala allah yonente ne ko waaw da nga koy tënk ba pare nga def nag tawakkul ala allah yaa ngi dégg loolu la da li la li la yàlla man loo da nga koy def li ci des nga bàyyi koog yàlla kon it yow julit li nga man mooy say zikk li nga man mooy say ñaan li ci des nga bàyyi koog yàlla mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na loolu mënu leen woon a jëriñ dara ci yàlla Yaaquba nag moo ko atte woon doonte ne la mu atte lu jubla ndax moom borom xam-xam la ci li ma ko xamal na am bokk Yaaquba yonent la woon kan mooy jàngal yonent kenn yonent yàlla koy jàngal directement li nga noonu moo tax mu ne xam-xam la boo xam ni ñun ñoo ko xamal te it keneen ku dul yonent it nga xam ne yàlla koy xamal donte ne da koy jaare ci sabab waaye mbokk jàng taxut a xam am déet wala ñu wax leen ko jàng taxut a xam yàlla mooy xamal heure boo jógee jàngi xam-xam ak xam-xam ba bu mu mën a doon xam-xamu diine la am xam-xamu adduna la sukkandikul ci yàlla ñaan yàlla yonent bi alayhi salatu wasalaam suñu borom nee na ko wa qul rabbi zidni ilma ay yàlla dollil sama xam-xam malaaka yu kawe yi seede lañ ko laa ilma lana illa ma allamtana xamuñu lu dul loo ñu xamal kon suñu borom mu ni yanquba moom xamoon na waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu gaa yi li ëpp ci nit ñi xamuñu lay lay priorité ci ci ci tax yàlla indi leen ci kaw suuf tey jii mën nga wax ni bu ñu wax naan yaa 7 milliards de doomu aadama yi dund ci kaw suuf waatal na moom au moyen moom sisier moom xamuñu lu tax yàlla bind leen ci kaw suuf yaa ngi dégg ñàkk xam gii nag mooy xamuñu seen diine xamuñu diine dëgg xattaa ñuy woote wa julit tey on estime que y a un milliard trois cent millions de musulmans waaye un milliard trois cent millions de musulmans yooyu boo leen doon càmbar nga dëgg dëgg dëgg dëgg di xool ñan ñoo ci am tawxid sax ci sunna bi yeneen bi bàyyee woon xeet bi boo amee day un tiers am nga lu bëree bëree bëri boo amee le tiers am nga lu bëree bëree bëri di nga noonu ëpp ci jullit ñi tey ñu ngi jëkkante ci xabru yi xabru yi lañ yaakaar xabru yi la ñuy wër xabru yi la ñuy ñi dee la ñuy sukkandikoo commencé le Sénégal ba ngaa nga yegg Indonésie ak foo mën a yegg loolee kon barab bi mu ne aksaru naas laa yaalamuun xamuñu boo demee nag ca suratu rum moom seede na lañu xam nee na yaalamuuna zahiran min alxayati dunia nit ñi moom xam nañu nu ñuy def ba tabax kër dañuy def ba dawal ay oto dañuy def ba créer des banques nu ñuy def ba régler seen mbiru adduna xam nañ ko waaye seen wàllu diine nee na li ëpp ci nit ñi xamuñ ko loolu nag yow ndawal julit nekk sa gàcc soo demee ba yàlla nattoo la am nga bac am nga licence am nga maîtrise wala jàng nga mécanique bu mi- bu miir ko xatta chauffeur dawal oto rek jàng nga ba mën a yóbbu oto camion fii Kaolack ngan la way sa diine moo gën a yomb fexeel jàng sa diine ndax loolu mooy priorité des priorités mi ngi noonu mooy priorité des priorités moo lay jëriñ àdduna di leen jëriñ àllaaxira mi ngi noonu borom boobu nag kon gaa yi yegsi nañu yegsi nañ ci Yuusuf bañ yegsee Yuusuf bi pas recevoir na leen ndax fukk lañu woon tey fukk ak benn lañu te bi mu séenee Binyaamin xam na ko ñoom Binyaamin ñoo bokk na ak bàyyi mu daal leen di dalal bi mu leen dalalee bokk na lu fassiru nii di wax nee na daf leen séddale waa ñaar ñu nekk mu boole leen benn néeg kon di onze lañu mu jox leen ñaar ñu ne benn néeg mu des kenn mu ne waaw seen rakk ji moom bàyyi leen ko mën na ñëw fii sama néeg biñ demee ba wéet nag mu ne ko Binyamin mu ne mu ne ko man maay sa frère Yuusufa te lii borom xam-xam yi wax nee nañ 40 ans dox na seen diggante mooy ba mu ko gëjee gis 40 ans dox na seen diggante mu ne ko nag man maay sa frère Yuusufa léegi sa suñu doomu baay yi li nga xam ne nii noonu lañ noonu lañu nekkee woon di ko jëfe ci man ngal waay bu ci amate benn tiis te la nga xam ne doon lañ ko jëf mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون
barakallahu fikum suñu borom mu ni falamma jahazahum bi jahazihim bam demee ba yebal leen seen yeb ba mooy lam leen jox ca pepp ma jaala siqaayata fi rahli axi noonu la defee la nga xam ne moom lañ doon nandale muy benn saa bu mag boo xam ne nii daan nañ ci def sangara yañ daan naan daganoon na seen jamono buur bi di ci servir ay ganam suñ daan natt it dafa nekkoon loo xam ne xaalis pur la moom lañ daan nattali nit ñi kilo yi dañ leen di war a jox moo tax mu tudd suwa tudd siqaaya ba mu demee jox leen la nga xam ne mooy ndabal buur la ndab ba fi raxli axiihi mu def ko ca la nga xam ne ni mooy bagage yu frère am ba summa azana muazzin gannaaw ba la yëgle aji yëgle ayatuhal iir ay yéen waa jëgg ji mooy caravane bi innakum la sarixuun yéen de ay sàcc ngeen qaalu wa aqbalu alayhim maada tafqiduun ñu daal di wax wëlbatu ko jëm ci ñoom ne waaw ana yéen lan ngeen di seet ba di ko wër qaalu nafqidu suwa al malik ñu ne ñun day dañu réer la la nga xam ne mooy nattukaayu buur bi wa liman jaa bihi ximlu bair ca ku ñu ko indil day daañ ko jox gileem ba mu fees ak peppam wa ana bihi zaim ca man yusufa maa koy garantir qaalu tallahi laqad alimtum ñu ne xee yéen ñu ngi waat ci yàlla ne yéen ñëpp xam ngeen ne maa jinaa li nufsida fi l ard ñëw ñu ngir yàq ci kaw suuf wa maa kunna sariqin te ñun day nekkuñu ay sàcckat qaalu fama jazaauhu in kuntum kaazibin ñu ne leen waaw yéen lan mooy doon payam su dee ne yéen da ngeen nekk ay fenkat qaalu jazaauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaau ñu ne payam day li ngeen di seet kuñ ko fekk ci la nga xam ne mooy ak njëgam mooy ay bagage am moom mooy doon payam kazalika najzi zalimin ndax ñun nii lañuy faye toñkat ya ñu ngi noonu mbokk yusufa complot na ak frère am daal di jël la nga xam ne moom la ñuy nattalee nit ñi dogal ko ci biir bagage yi binyamin tàggatoo ak ñoom tàggatoo bu rafet léegi bàyyi leen bàyyi leen ba nga xam ne dem nañ ba génn dëkk ba nag ñu daa yuusufa ànd ak benn groupe ci garde yi mu àndal ñu daal di leen di yuuxu hey sàcc hey sàcc yéen sàcc yéen yéen su yéen giir gi sàcc sàcc ay sàcc ngeen innakum la sariqun borom xam-xam yi ne waaw lu tax yusufa di wax ay sàcc lañu ca sàcc wuñu ñu ne ak ay sàcc lañu ndax ñoo sàcc sàcc gi gën a rëy ci kaw suuf ba gaa yi ndax gis ngeen sàcc gu gën a rëy sàcc yusufa waay ah ñu nga noonu kon ay sàcc lañu ay innakum la sariqun ay sàcc ngeen waaw léegi ñoom ñu wëlbati ko ne waaw yéen lu ngeen réerle ñu ne waaw lu ñu réerle yéen it mujj a natte léegi nag li ñu doon nattale da ngeen dem kenn gisutu ko yéen ñi yéen a ko jël dégg nga ca sax xam naa ne man loolu képp ku ma ko indil danaa ko jox gileem ba mu fees ak dugub loolu muy kon muy wane valeur bi nga xam ne nattukaay boobu amoon na ko woon ah léegi maa koy garantir ci borom xam-xam it ci la ñuy d'accord ci ne nit ki mën na teg ci dara sama fas day dafa réer ku ma ko indil day dinaa la jox dix mille francs tey sama doom ji réer ku mën a def ay pexe ba indil ma ko dinaa la jox un million loolee dagan na ci lislaam waa ja nga xam ne moo def effort ba génne ko dagan na mu jël ko lekk ko te yow mi ko waxit heure bu ñu nit ñi indilee la nga doon wax da nga ko war a joxe loolu tax yusufa ne ana bihi zaim may garanti ne ku indi nattuwaayu buur bi dana am gileem ba mu fees ak dugub gaa yi na ko ñi ngi wàcc yàlla ne yéen xam ngeen ne ñun ñëw ñu pour yàq ci kaw suuf gaa yi gis ngeen de waxuñu ñëw ñu pour sàcc dañu ñëw ñu pour yàq ndekete sàcckat yàqkat la mbokk jurit boo xoolee sàcc li mu mën a yàq ci économie réew kenn xamul mu toll tey jii da ngay gis lu bari borom bitig yi pourquoi ñuy investir xaalis bu dul jeex ci ay gris en fer ah protéger wu encore gars yi lu tax sàcc rek a tax de bu dul woon a sàcc daf dañ ko def déedéet deuxième boo lekk encore dañuy gis ne waa ji nga xam ne nii dafa xam ne fii ay sàcc ngi fi laa jël suñu mbokk ba Modou ñaan bi daan nekk ak ñun fii Bamba ñaan ñu ngi noonu yàlla yàlla dollu ko wér day wax côté Thiès yi ñu dëkk da daan wax ni boobu mi ngi nekk Dakar nee na bu dul woon ak sàcca ñoom duñuy toog sax Dakar te mooy seen àll yi lu ne mën nañ ko faa def mais nee na tey da ngay am employé dañuy bàyyi ba ganaar yépp normal guddi la ñuy ñëw rek gaare position boobu yépp yóbbu seen wattu tali ba kenn ñi mutu faa yar ganaar kenn ñi mutu faa yar ay xar sa toolu ñaan bi dañuy bàyyee bàyyi ba xam ne da nga naan xëy na semaine prochaine ma buddi guddi li ñu ñëw buddi yépp yóbbu loolee kon ngeen gis ne yàq ka dëgg-dëgg mooy sàcc day yàq looloo tax ibnu abbas daana wax ne un an bu ñu tëral looy yàlla ci nit ñi moo gën 40 ans yu ñuy tawlu ndax looy yàlla bi bu ñu ko tëralee ñëpp maandu kenn du ñu may def la bon bokkul ak nit ñi di liggéey am ñu sàcc mi nga noonu kon ca it yéen ñëpp xam ngeen la nekk ci gannaaw sàcc sàcc ki dem di sàcc boo koy bu lay jëkk di la rey am déet mi nga noonu bu jàppee dañ koy bëgg jàpp mu rey la maa ngi leen di nettali fi rek benn gang boo xamee ne nii ñoo nekkoon pikin di rendi naar yi yàlla dafa dogal ko jiite woon gang ba suñuy kër sorewul woon ca fañ juddoo mu ñëw fii léegi li tax ñu jàpp leen mooy bi ñuy séddoo lay taxaw mu ne hey lii laay jël maa ko rendi lii laay jël fi ñuy xëccoo la benn fois téléphone pour suñu jàpp leen mi ngi noonu mu def musiba sur musiba bañ koy jàpp ña ngi koy jàppe wari cinéma vox ba mu demee ba xam ne instructeur bi ñëw na ak pistolet dafa ñëw jël paaka bi mu yoroon but ci boppam mi nga noonu deewul nag dañ ko jël yóbbu ko tëj ko ca kaso ba ci noonu waaye pour wane rek conséquence su sàcc du na rek ne sàcc gi ci boppam mais la mën a jur gannaawam ana ñaata nit la ñuy rey te kii kii leen rey jubluwul woon rey leen moom mais li mu bëgg waa ji na naar ko ko xañ looloo tax man maa ngi juddoo géewul ndax xam ngeen géewul mooy capitalu xaadriya ci Sénégal mi ngi nekk diggante Kébémer ak Louga ci nga xamul boo ah ngu moo géewul boo demee géewul yow am na benn Elton booy romb yow mu jëm Louga wala Saint-Louis Elton bi nga romb à gauche benn waay moo fa ñëw ñëw bëgg a sàcc li ñu jaay comme fekk fa gérant bi ak gardien bi moog gérant bi seen ñaari kër ñoo jàkkaarloo ci géewul ah lan la def ñëw jekk ko rendi ko dem ci gardien bi gardien bi muuma la du dégg moo moom it daxu ko gannaaw rendi ko jël kees gi dem yoonam xoolal ma loolu mbokk ñaari bakkan lan lan la ko waral sàcc sàcc kees gi rek moo tuur ñaari bakkan loolu kon li suñu borom wax ne maa ji naa li nufsida fil ard mbokk mooy conséquence danger bi bi sàcc mën a am gannaaw bi ñu ne xam ngeen bu ñuy sàcc ca ah kay ay sàcc ngeen ah léegi nag yuusufa na leen waaw léegi lan mooy payu ah ki sàcc bu dee dañ ko jàpp mu mbokk ci yéen booba yuusufaa ngi lal plan ñu ne ko ñun li ñuy fayee ku sàcc képp koo koo xam ne da nga sàcc bagage am dañ la koy jox nga nekk jaamam pendant un an te doon loolu loolu dong lu yuusufa bëggoon ka nga xam ne moom nga sàcc kooku mooy payu lañ sàcc dañ nangu lam sàcc ba pare ah mu daal di tëdd mu daal di nekk jaam ci moom pendant un an lii moom la moom moom la gaa yi wax ñu dellu ci ne kazalika najzi zalimin nii la ñuy fay tonkat ya comme dafa am lu ñu leen leboon démb nag incha allah ñu fay leen ko Cheikh Ousmane bismillah
والله أعلم
jazakallahu khayra suñu borom mu ni yusufa fa bada'a bi awiyatihim noon la commencé ca seen mbuus ya qabla wi'aa'i axi avant mbuusu frère am ba summa saxrajaha min wi'aa'i axi gannaaw ba mu génne ko ca mbuusu frère am ba kazalika kidna li yusuf naka nii lañ fexee la ñeel yusuf ma kaana li yaaxuza axaahu fi diini almalik ndax moom nekkul woon di mën a jël frère am bi ci diine yi buur ba ay ci doxalinu buur ba ci loi yi ñu fa doon atte illa an yasha allah lu dul xanaa dafa sob yàlla rek narfau darajati man nasha ñun yàlla ñoo yëkkati daraja ku ñu soppi suñuy jaam wa fawqa kulli zi ilmin alim te nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aji xam du ko gën a xam qaalu in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl ñu ne waa binyaan mii day binyamin bi day bu sàccee frère am ba ko mag moom it sàccoon na lu jiitu fa asarraha yusuf fi nafsi wax jooju yusuf nëbb ko ci boppam walam yubdiha lahum feeñu lu ko ñeel leen lan la yusuf nëbb qaala antum sharrun makana mu ne yéen yéen a gën a yées place wallahu a'lam bima tasifun yàlla moo gën a xam li ngeen di melal qaalu ya ayuha al aziz ñu ne ko ay yow premier ministre bi ku tedd ki inna lahu aban cheikhan kabira kii day nga nar a jàpp dafa am baay boo xam ne dafa magi magi goo xam ne gu kawe la cheikh mag la kabiran bu xubbi daas bu magi fa xuz ahadana makaana tànnal kenn ku la neex ci ñun nga def ko jaam inna naraaka min al muhsinin ñun gis nañ la nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetal mi ngi noonu mbokk kon yusufa frère yi wax nañ ko ne ko képp koo xam ne nii gis nañ ne yow yaa sàcc yow la ñuy def jaam mu ne waa kon baax na daal di commencé ci mbuusu frère yeneen yi du ubbi du ubbi la ci de sàcc ko ku mu ubbi ah ci de sàccul ci de sàccul ba mu des nag frère am moom ci boppam ñu ubbi mbuus yi rek génne ko bi mu ko génnee suñu borom yàlla ne nii la ñu fexee la yuusufa ay ndax bëggoon naa téye frère am bi ca mënu ko woon a téye ci doxalinu buur bi doxalinu buur bi mooy lan ñoom booba seen seen doxalin nit ki bu sàccee dañ koy dóor ba pare amaan ko duubulu lu mu sàcc da nga noonu bu sàccee dañ koy duma amaan ko duubulu li mu sàcc loolu mooy diine yi malik amma diine yanqub képp koo xam ne nii da nga ko sàcc dañ la koy boole ak moom nga nekk jaamam pendant un an waa gars yi diine l'islam nag lu mu lu mu wax ku sàcc lu ñu ko war a def dañu war a dagg loxoom ndax yéen moom ngeen di doxal hee de doxaluñ ko de doxaluñ ko de ki sàcc am nen ak ki sàcc un milliard yem temps pénal ngeen jëm di añaka réer ak ndekkee football boo jeexee jeex na mi ngi noonu benn waay day nekk ñi nekk ak ñun fii ci jàkka ji benn collègue am dafa def détournement caisse gu mu yoroon y avait onze millions dans la caisse mu jël ci trois millions biñ demee ñu jàpp ko tëj avocat bi daan men seen waa ji dafa daf ñàkk fayda booy sàcc kay sàcc lépp rek mi ngi doon gaa yi mën ca dem dum dondi yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk nañu xam ne suñu diine loolu la tëral amma malheureusement 95 pour cent des musulmans ñi ngi leen tëralal diine tubaab gaa yi di yàlla ko tudd diine day ma kaana li yaquza aqahu fi diinil malik ay waay tubaab lakum diinukum waliya diin ñun suñu diine mooy ku sàcc ñi ak preuve dañoo war a dagg sa loxo mi ngi noonu suñu borom yàlla nag nee na kon yusufa am na occasion jël frère am indiwaat ci ci ci dëkk bi loolu it mooy ngiree tiis bi nga xamee ne nii ñoom tegoon nañ ko seen bàyyi keroog bi ñuy jël yusufa tiis boobu dellu ci ñoom ba lii fay lali ba mën a effacer ñoom it musiba bi nga xam ne defoon nañ ko donte ne ne da nga laaj pourquoi Youssouf téye Bunyamin ndax papaam na mën a rëcciisoo naam la chak waaye it moom yeneen ci yàlla la yàlla xamal na ko ne tôt ou tard mbir yi mi ngi mujjee ci xéewal ci bànneex am déet te mbokk ki xam loolu ak ki xamul bokkuñu loolu kon mi ngi noonu suñu borom nag nee ne yàlla moo xamal yusufa lii moo yëkkati daraja ku ko neex ci ay jaamam waaye nag yow mi yàlla yëkkati daraja ci ci xam-xam bul bàkkuwaay ndax suñu borom nee ne bépp borom xam-xam am na ku ko gën a xam am déet Moussa alayhi salaam moo taxoon ma toog di waaraateeg bani Israil benn waay ñëw na ko waaw yow yonent yàlla bi kan moo gën a xam ci kaw suuf mu ne ko kaw suuf na maa fi gën a xam suñu borom na ko déedéet Moussa am naa sama jaam boo xam ne waxuma moo la gën a xam waaye mëtoo ko sax élève Moussa na jaam boobu de dinaa ko seet def na ay effort mbir ba gudd na demal suratul kahfi ba mu demee ba dajeeg jaam boobu di xadir Moussa ànd ak moom xadir jox ko condition yi nga xam ne moom lay ah moom la koy accepté ci école bi condition yi mooy lan loo ma gis may def bu ma laaj dara Moussa ne ko loolu koy yomb na ñu ne kon bismillah ñu dem trois leçons lañ jël xadir dàq ko trois leçons rek mu dàq ko kon li suñu borom ne fawqa kulli zi ilmin alim loolu it mooy won waaye yàlla bëggul koy fokkaloo ci xam-xam te li gën a yéeme sax da ngay gis benn waay bu ñu naan docteur tel nangam tel mu am giiju ci xam-xam mais ay masala yu simple ca lay daanoor ba xalan ko loolu mbokk mbiri yàlla la pour wane ne xam-xam mbiri yàlla la yàlla bëggul kuy kuy kawe kawelu loolu kon mi ngi noonu fawqa kulli zi ilmin alim léegi nag frère yi yéen ñëpp xam ngeen Yuusufa wala ñuy waxam waaye xamuñu ci dara ñoom ñu ne ah bu sàccee jaaxaluñu grand frère am ñii la nekkoon daa sàccoon yaa ngi dégg te loolu bokk na li ci mufassir fu musaffir mufassirun yi wax jële ko ci israiliyat bi wallahu subhanahu wa taala alam ñu ne yanquba dafa amoon benn sœur sœur boobu ñoo bokk ki leen jur mooy ishaq ishaq boobu amoon benn ceinture bu mu daan takk ceinture boobu ñoom ñu fonkoon ko ci ñoom lool comme yéen ngi jàng ci suratul baqara suñu borom naan wa inna ayata mulkihi an yatiyakum taabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiya mimma taraka alu musa wa alu harun mooy ay jeexital yu jóge ci yonent te loolu it bokk na ci lu ñuy barkeeloo loolu nag ci yonent rek lañ koy def yonent bi alayhi salaam bi mu faatoo daan nañ barkeeloo mbubbam waaye kenn du barkeeloo mbubbu abubakar kenn du barkeeloo mbubbu omar léegi nag sœur bi comme moo magoon yanqooba moom dafa ne dafa bëgg jëloon yuusufa yóbbu ko këram pour yuusufa gane ko yanq mu def fay fan rek yanq bu mënutu koo muñ ne gaa yi dem leen jëli li ma yuusufa moom it mu xool xool pexe xamu ni muy def mu jël seenturu yanqooba bi daal di koy limas yuusufa takkal ko ko ci biir yéreem solal ko yéreem naka yuusufa ni bi ci papaam rek mu daal di jóg ñëwaat anu yuusufa anu yuusufa moo sàcc sama sama sama ceinture bi yaa ngi ko bële ko xam nga ne sama dem du sàcc moo ko sàcc dañ koy futti ñu futti ko rek gis ceinture bi mu ne dama koy yóbbuwaat daal di koy yóbbuwaat loolu lañ nekk li moo tax frère yi daal di ne bu sàccee jaaxaluñ ay moom grand frère da fi sàcco yaa ngi dégg loolu it muy wàññi ne mbokk nit ki heure booy def musiba sóoraaleel say mbokk mi ngi noonu tey jii masalan da ngay gis bu benn li ñuy tuddee ibaadu defoon fii njombe xale bu jigéen bi mu def njomb ay ibaadu ñuy gis tey da ngay yàq daru ibaadu yépp am déet ah tey jii ana ñaata naar lañu rey fii Sénégal lan moo ko waral digg na ay naar ñi ngi rey Mauritanie loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax heure booy def seetal yàlla waaye seetal say mbokk conséquence ba mu nar a am ci yow gis ngeen loolu kon ñu ne bu sàccee moom frère am sàccoon na Yuusufa nëbb loolu te it mbokk yeneen ci bàyyi saa sallam daana wax ni laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu indal xadab nekkul jàmbaar rek koo dóor mu daanu waaye jàmbaar dëgg mooy soo meree nëbb mer wi moom la ñuy jiñ sàcc waaye dafa noppi rek ci xelam nag nee na leen wallaay yéen a gën a bonne place ndax bu dee sàcc dëgg yéenay sàcc dëgg-dëgg mooy ba ngeen may sàcc ci sama baay yóbbu ma sànni ma ca teen ba bu dee sàcc rek yéenee sàcc antum sharrun makaana waaye nag wallahu maa ngi dimbali ko yàlla ci li ngeen di melal léegi nag problème am na problème bi mooy lan yéen ñëpp xam ngeen ba ñuy jóge ci seen baay kóllëre gëm jël ak ñoom nu ñuy def ndax mën na dem ci baay naan ko Binyamin dafa sàcc la shakk ne du leen gëm abadan léegi ñu ne Yuusufa yow day ñun yoon yi ñëw ci yëpp gis nañ ne ko baax nga koy rafetal nga waxoon naa la ko keroog yàlla seedal na ko ak mbaax ci biir ba mu nekkee jaam kër pale ba mi nga noonu seedal ko ak mbaax ba mu nekkee ca kaso ba seedal ko ak mbaax bu mu yore nguur gis nañ li mu del mustaniin xam nga li ñu lay proposé ñun fukk ñi tànnal ku la ci neex yóbbu def jaam te nga dimbali ñu rek sunu frère bi nga jox ñu ñu yóbbu ko ndax mënuñoo dem mukk mukk mukk di di lay bàyyam ay lay gaa yi nag buñ bëggee xam Yuusuf lañ li tontu incha allah yàlla nañ fi yàlla dajale war suba ak jàmm yàlla defal ñu tawféex defal ñu aafiya fi dunya wal axira may ñu xam-xam bu rafet buñ koy jaamoo tam nangul ñu ko mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain xam naa yéen a ngi bàyyi xel ñee di lal fële ci cour bi ay suñuy mbokk lañ yoo xam ne seen dégg neexul waaye fi la ñuy daje dimanche kii weer wu nekk am ne dimanche bu ñu fiy daje di jàng seen diine ay góor ak jigéen tey nag ndeysaan dañ ne dañoo bëgg indi ndogu ci jàkka ji moo tax ngeen leen def noonu ah, loolu doon misaal boo xam ne da war naa ñaax ñun ñëpp ndax ay muuma ñuy jóge fu sore sori ñëw daje di jàng seen diine loolu mbokk lu rëy la mi ngi noonu te it jàkka bi dana dajal benn ci imam yi nga xam ne dañu jógee Makka fas yéene ñoo fii jullee fii ñun ak gee incha allah euh, pour képp ku ko man di teewe si mi ngi noonu wa ala kulli xaal ñaar yëpp ñoo yem loolu lépp kitaabullah la ki jël kaamilam di jàng ak ki jël portable am di jàng day wax rek la yonente bi alei salaam waxoon ku jàng ci téeram yàlla bi benn xarf yàlla fay ko fukki tuyaaba kaamil yi ba mu xewee yàggul yonente bi alei salaam mosu ko gis bu jëkk ci ay der lañ daan bind gannaaw ba yàlla indi kayit koñit bu yàlla indi euh, portable yi électronique yi loolu c'est la même chose boo ci jàngee da nga am tuyaaba ba ngay am ci kaamil ba naam bismillah waaw naam yéeféer boo xam ne dafa rey musulman bu nekkee ci dëkk boo xamee ne ni charia la ñuy atte woo dañ koy rey ndax loi ba nga xam ne moo fay tëral loolee dañ koy tëral ci loi l'islam ca mboolem diine yi mës a wàcc kaw asamaan ñoom ñëpp a dëppoo ne ki rey ca tey ko dañ ko war a rey lañ leen di tolérer rek mooy la nga xamee ne seen diine may na leen lu mel ne naan sàngara ak yu deme noonu amma bu dee ne ci wàllu njaaloo wàllu rey nit wàllu sàcc wàllu yu deme noonu loi ba l'islam di tëral loi boobu la ñuy tëral seen kaw naam mi ngi noonu naam bismillah waaw bismillah ki julli ci yéenewul ala kulli xaal loolu dana jafe trop lan ngay tudde yéene mbokk bu dee li yéene mooy li ngay wax loolu bokkul ci julli damay yéene julli nangam bokkul ci julli waaye fi nga jógee sa kër tey la ñi ngi julli tisbaar nga jàpp jóge sa kër sa xol li ci nekk ku la laajoon foo jëm da nga naan ko damay julli ci loolu mooy yéene terminé mais yéene du lu ñuy wax mi ngi noonu naam bismillah waaw waaw bismillah naam alayhi salaam bu dee ne dafa jigéen bu setul wala kulli xaal loolu mooy ixtilaaf dafa am ci borom xam-xam yi ndax jigéen bu setul am na droit laal la nga xamee ni ni moom mooy alquran waaw lan ci gis ñun la diggu doomu gën a diggu doomu mooy borom xam-xam yi wax ni li nga xam ne daal ragal na fàtte ko loolee mën na koy jël di ko jàng su dee ne ragal na fàtte ko waaye bu jubloo rek taabut kese mooy jàngu tuyaaba kese lañ ca tànn mooy bum jël alquran di ko jàng loolee mooy la nga xam ne loolu lañ ca tànn am maa nag bu dee ne moom dafa nekkoon ci loo xam ne nii lu mel ne ab daara la wala muy am ku muy jàngal nga xam ne nécessité la maadaama am na borom xam-xam yu wax ne mën naa nekk su boobaa dañ ko may ci loolu mais daal bu dee ne dafa jublu rek pour sàkku tuyaaba kese te setul loolee moom na nga na ko bàyyi ndax borom xam-xam ya jàpp ne dafay xaraam mu lal kaamil wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa mbokk nag il faut ñu ñu ñu waaw waaw waaw bismillah waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waaw ala kulli xaal waa ji nga xam ne dafa ñëw ni di jënd ci yow marchandise nga ne ko ah man kat amaguma ko mën naa la ko jox délai sàngam ngeen d'accord ci loolu nga ne ko léegi da ngay joxe la nga xamee ni mooy ab avance su dee na da ngeen a dëppoo ci loolu gisuñu ci benn problème jamono yonent bi alayhi salaam daañu def ñu tuddee salaf salaf mooy lan mooy gars yi dañ daan jóge Sham indi xaalis jox baykatu ñuy bay tàndarma jënd ci ñoom ay saagu tàndarma su dee ne tàndarma ju ñor na ñu livré leen seen tàndarma loolu daal moom bu dee ne yow am nga yaqin ci ne waxtu wi nga ko jox bële waxtu wu moom da nga ko am su boobaa dara nekkul ci nga jël ko am maa nag bu dee koy làmbatu yow marchandise bi amoo ko xamoon ko kañ nga koy am xamoo noo koy amee amoo droit di jël xaalisub jàmbur amma bu dee ndax binyamin xàmme woon na yusufa ah kay xàmme woon na yusufa binyamin moo topp ci yusufa te dañ naan yusufa amoon na lu mu gën a néew néew ay 10 ans mi ngi noonu am ñu wax ay 12 ans ca xam ngeen ay nit ay doomi ndey mën nañ magante sax un an moo tax mu ne ko ana yusuf mooy kon bi muy dem moom binyamin xamoon na bu baax yusuf ràññee na mooy binyamin lu mu néew néew amoon na 8 ans wala mu amoon sax 10 ans moo tax mu ne ko ana yusuf waaw naam mbokk bi waaw waaleykum salaam wala kulli xaal yooyu moom ay lu xaw a compliqué la ala kulli xaal nuuru samawati wal ard mooy yàlla mooy jubal waa asamaan ak suuf mooy kii leeral asamaan ak suuf mooy jubal waa asamaan ak suuf am naa nuurul ala nuur loolu lu bëri ci borom xam-xam ña ngi koy dellu ci julit julit moo amoon nuurul fitra bu nekkoon ci xolam mu yëg wéetal yàlla bu du ko bokkaale dara gannaaw ba nag nuurul quran ñëw dolli ko ci loolu muy nuurul ala nuur moo tax mu ne yakkaadu nuuruha nu mu koy waxee sax du dëkk waaw xatta wala tam tam tam sa sunaar mu ne diw da- dafa mel ni diw guñ teg te diw olive boo ko tegoon fu xaw a lëndëm day briller mu ne nag loolu mooy xolu julit day yëg fitra ci ne yàlla kenn la amaa nag bu dee ne nag diin dafa ñëw nag confirmé ko mu nekk nuurun ala nuur mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala alam waa xam naa ñu ngi jégalu ci yeneen question yi ba yàlla dajale waat ñu fi rek mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain naam